dañuy def rek pour gagner ah, mais même spéculatoire la dañu ne. Hmm? ma ne man daal li xalaat mooy man lu tax ñun Sénégal ñor ay njiit yoo xamante ne du ñu wax nit ñi dëgg hmm? man li man militaire laa de militaire laa billaahi wallaahi tabaarakallaah say dëgg mais fépp foo romb ci mbedd yeeg ci kër yeeg ci cantonnement yeeg ci brigade yi fépp. ñëpp xam nañ ne nguur gi nekkuñu ci dëgg mais ñëg gi ñu ñëg bañ nangu dëgg ni boo nekkee ci ci dëgg ci dëkk da ngay nangu dëgg ou bien boo indi ay projet da ngay jël mu leer démb rek conférence bi ñu def noonu man dama rus sax doon homme de tenue parce que ay policiers yi ñuy manipuler te après image yi boo xoolee lépp lu mu demee mais c'est pas possible dans dans ce pays quoi nag moom bu continuer nii bu fekkee ne nguur gi reculé bu opposition yi reculé nguur gi reculé ci guerre civile lañ jëm parce que ñun armée beeg police beeg gendarmerie bi yëpp lañ dóorante fii ay bal parce que ku ci nekk am na foo bokkoon ah. te ñëpp xam nañ li xew ci dëkk yi muy dëgg kon nee leen ñu ñu ñu ñu ngay comme ñu ngay déglu nañ am conseil boobu su dee chef yi toog ak ñoom dañ naan leen nañ troupe de. lu leer nag laa leen di wax bis bu demee ba dégénéré carrément gars yi ci seen kaw la ñu wëlbati te loolu nag mën nañ koo éviter ci lu ndaw hmm? dëgg mooy doxal réew quoi waaw dëgg bu amul ci réew lépp man dem naa Libéria Rwanda dem naa fa billaahi wallaahi taalaahi mais li ma li ma fi gis actuellement nii loolu moo fa am loolu moo fa amoon ba dëkk yooyu tàkk parce que pouvoir bi ci boppam mooy manipuler. dugal ay nit ñu yor ay arme di xeex ak ay machette la population di di di gor Rwandais ni lépp lan waaye c'est pas vrai contrôler quoi lan lañ contrôler buñ contrôler woon yow laa day casse comme ça là tout ça ñu ñëw casse lépp ñu naan sous contrôle waaw c'est calme parce que nañu jël Ousmane Sonko yóbbu ko waaw loolu xam nga ñoom ñu ngi wax naan loolu yëpp ay sondage la ministre yi dañuy fen ku ko wax dëgg wax dëgg te population ñëpp xam nañ ñenn ñi ragal lañ def ñenn ñi seen sol salaire yi ñu am peut-être moo tax ñuy bëgg a préserver wala kaso la ñu ragal wala dee mais du question ñëpp xam nañ ne dëgg bi daa xam nañ ko waaw parce que dañ bëgg a éliminer benn candidat peuple bi nag nanguwul mais nga reculer Ablaye Wade dafa reculé woon bi mu jàppee Macky Sall bëgg koo yóbbu kasu nit ñi jóg te te te ñi jógoon sax bëriwuñu loolu ah mais daf koo bàyyi sëriñ si wax mu bàyyi mais Macky moom ak nguuram ñoom ne lañ daal il faut que ñoom ñu def li ñu def complot nañ seen complot la et puis affaire xale lañ def quoi jeu d'enfant boo xamante ne ni même xale bu xamul dara sax xam ne ni lii vraiment dafa terre teer ko vraiment war nañu jàppale quoi homme de tenue ñëpp a sonn nag ñëpp a sonn bon bien vrai que ni gars yi ci terrain di def ñenn ñi def lu ñu bëggul def waaw parce que xam nga rek gis nga ay nerf yooyu jël di leen dugal ci biir kii pour ñoom ñuy tiire doo gis benn policier bu am bu am bu am dignité buy tiire doo gis gendarme bu am dignité buy tiire ci ka population bi jamais koo ci gis mu tiire ci population bi xamal ne il est inconscient wala boog muy ñoom seen nerf yooyu ñu recruté noonu. mais c'est pas sérieux hmm? yow policier nga toog ay chef de police ngeen toog mais yéen da ngeen am ay image yoo xamante ne ay alors que eh, eh, image yooyu ñooñu di wàcc ay auto policier la ñu wàccee nga bëgg ko gëmloo monde bi yëpp hmm? fu ñu toog di ko wax ci télé ci rajo hmm? mais bu ñu nee ni ay ay infiltré ñoo am biir Sénégal. duñu ay policiers civils ça ne se passe pas comme ça policiers civils même militaire civil du du du nii di on met on se en en civil en arme c'est pas vrai loolu amul gis nga waaw c'est c'est très grave mais ñoom moo amoon Rwanda ministre yeeg dëkk kii yeeg ñu nekkoon bi ñoo doon xam population bi maanaam outillé contre tous yi yor ay machette di leen di def lu nekk. mais après man xam nga la mooy am beneen na beneen Nations Unies moo fi ñëw yor suñu réew di jël suñu pétrole di ko séddoo parce que loolu lañ def Libéria def ko yeneen pays yëpp parce que bu ñu ñëwee benn fonctionnaire au fonctionnaire Nations Unies lañ jël mu gérer affaire u dëkk bi fu muy jëlee ressources yi li ñuy fay soldats yi ñuy dugal fii ci Sénégal yëpp ci suñu ressource bi lay jógee te loolu war nañ ko mën a éviter hmm? yàlla nañ ci yàlla musal quoi vraiment. parce que ñoom bu demee ba ba ñu gis ne gars yi rey population bi dañuy ñoom dañuy indi seen armée forcé du question kii moo leen dina bëgg a dugg soli dañuy dugg si pour intervention comme ni ñu doon def ci yeneen def nañ ko Gambie gii ñu jege nii dañuy parce que dañuy xam ne ne waa ji dafa not population bu léegi buñ ko fi jëlee du armée moo fi toog du beneen opposant moo fi toog ñoom ñoo fi toog ñu naan mooy léegi retard te mën na dem dix ans boobu ñu ngi sàcc suñu pétrole ba suñu ressource yi di ko yóbbu ñuy door a euh, créer élection ne léegi voilà bu ñu dooree ñu créer seen élection ne léegi bon euh, nag benn Sénégal ñoo jël quoi te ñoom ñoo lay imposer ki ñu fay teg Libéria Ellen Johnson lañ fa teg hmm? mu ne foofu échec après ci lañu yow jël Georgia hmm? bien sûr Ellen Johnson bi koy installé sama kanam la bien sûr mais vraiment nañu yàlla yàlla may jàmm quoi gars kii fay si seen xel ñu xam ne dëkk bi ñëpp ñoo ko bokk ñuy dawal yoon quoi waaw ok ok jërëjëf. ci de droit am justice bu indépendante justice boo xam ne li défense bi di laaj dañ ko koy accordé. parce que soo ko ko accordé dafay mel ni da nga bëgg euh, euh, a affaire yi euh, parax paraxee ko pour affaire jeex loolu yëpp donc chaque fois dañ jël temps donc aussi bien ci affaire wu viole bi aji Sarr Ousmane Sonko que affaire bi nga xamante ni moo doon Sonko ak Mame Mbaye Niang wax ne justice daf ci parax pay da laaj ndax ndax mbir bi dafa am yàkkamti parax paraxe ma ne loolu mënuñu koo wax ndax am na parax paraxe parce que soo leen seetloo événement yi mi amoon. ci mars 2021 mars 2021 ci la événement yi amoon te ñu ngi ko jugé en mai 2023 donc def na ñaari at yaakaar naa ni at bu duré ñaari at wala dossier boo xamante ne instruction bi ak jugement dem na ba ñaari at mënuñu wax euh, euh, yàkkamti am na ci bi ci jiitu mooy euh, ki nga xamante ne mooy juge d'instruction bi moom mi ngi clôturer inscription bi renvoyé devant la chambre criminelle en janvier 2023 janvier 2023 ordonnance de clôture bi jël nañ ko renvoyé mbir mi pour ñu juger ko devant la chambre correctionnelle du tribunal euh, de Dakar biñ ko defee euh, juge bi normalement 15 jours après waroon na am ku xam justice xam ne procureur pour mu ordonnance ak yooyu euh, fukki fan ak juróom benn ci procureur bi mu ko bëggee juger bi mu ko bëggee programmer pour ñu juger ko ñoom avocat Ousmane Sonko yi dañoo def recours ca chambre d'accusation ñëpp a xam ne recours boobu ñoom d'abord amuñu ci yoon wàll ndaxte foofu parquet moom moo war a relever euh, appel mais ñu def appel te bi ñu defee appel tamit loolu terewul woon ñu mën a juger mbir mi ba léegi ñi xam yoon xam yoon nu muy def te di ma déglu xam nañ ne suñu xasee ba renvoyer devant tribunal notamment devant la chambre correctionnelle criminelle foofu matul woon ñuy xaar ay recours Euh, juge yi tribunal bi ci boppam moo ni déet comme kat ñu def nañu appel contre l'ordonnance devant la chambre d'accusation dañuy xaar chambre d'accusation jël temps moom tam statué mi ngi à peu près ay mois de mars bi mu statué rejeté recours bi ne dem leen devant la chambre criminelle ñu jugé affaire yi mu jeex ñu defaat appel boo xamante ñu koy woy pourvoi en cassation devant la cour suprême bi ñu defaatee pourvoi en cassation devant la cour tribunal bi tamit ne déedéet du ñuy jugé waat dañuy xaar ba cour suprême wax te foofu kat ci droit xam nañ ne le recours le pourvoi était manifestement irrecevable ndaxte renvoyé nañu affaire ba pare d'ailleurs ki nga xamante ni muy greffier cour d'appel matu woon sax muy agsi ci magistrat yi greffier bi nekk cour d'appel mënoon na xool rek xam ne lii ci cas manifestement irrecevable yi la mu bañ koo yóbbu cour suprême waaye ay la ko yóbboo cour suprême waa cour suprême tam nañoo ñoom dinañ ci statuer tribunal bi toujours chambre criminelle bu grande instance tribunal de grande instance Dakar ne dañuy xaaraat ñu xaaraat bi ñu xaaraat dañu xaar ba cour suprême rejeté pourvoi bi ci la ñu soog a mën a programmer procès bi moo tax su leen ñu bari dañuy bàyyi interpréter parce que nit ñi dañuy interpréter te duñu lire bala ngaa interpréter da ngay lire wax nañ ko wax ci tubaab après ñu tekki ko. juge bi dafa ne statuant publiquement contradictoirement contre Adji Raby Sarr et Ndèye Khady Ndiaye et par contumace à l'égard de Ousmane Sonko en matière criminelle et en premier ressort loolu mooy euh, juge bi bi muy statuer dafa ne Adji Raby ak Ndèye Khady Ndiaye ñoom ñëw nañu taxaw waaye Ousmane Sonko nekku foor donc dañ ko jugé par contumace loolu juge bi moo ko wax moo tax su ma déggee ñu naan contumace amatul léegi ndaxte dañ koo correction juge bi moo ne par contumace juge lu wax kenn du ci teg dara ndaxte le juge est le euh, moo am le dernier mot mu ni par contumace mu ne au fond acquitte Ndeye Khady Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs mu ne donc Ndeye Khady Ndiaye li ñu wax ne li ñu ko toppee pour complicité de viol ñu ni loolu daanu na kenn daanu ko ci ñu ne acquitte Ousmane Sonko du chef de menace de mort ñu ni lii aji Sarr wax ne Ousmane Sonko daf ko def ay menaces de mort loolu dàq nañ ko loolu tam amul ju bi mooy wax de ñu ne déclare Ndeye Khady Ndiaye coupable d'incitation à la débauche ju bi ne Ndeye Khady Ndiaye nag moom liñ ko toppee te daan nañ ko ci mooy incitation à la débauche mu leer moom daan nañ ko ci incitation à la débauche mu ne pour Ousmane Sonko disqualifie les faits de viol a à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse disqualifie les faits de viol reprocher à Ousmane Sonko en cas de corruption de la jeunesse le déclare coupable de ses chefs loolu mooy la mu ni viol bi nga xamante ne nag dañ ko toppee woon Ousmane Sonko mu ni naam naam li Adji sar wax ne dañu am dañu am lu ñu séq am nañu ay rapports sexuels yu bari ak loolu ñun loolu yëpp am na juge bi bind na ko